siiw ci manifester kenn terewu ko Sénégal loolu constitution moo ko garantir maintenant bu ñuy wax affaire terrorisme dafa am ñeenti procédé yoo xamante ni moom lay utiliser te ñeenti procédé yooyu bi ci njëkk c'est-à-dire du ñëw ci loo xam ne dafa wute ak yow te ci ñaar yooyu noonu ñaari élément rek lay utilisé Nous ñun ay sénégalais mais dañoo bokk ci grand ensemble Nous xamante day permettre libre circulation de personnes et de biens Nous espace un donc ñi fa nek ñep tay ci espace bobu yëpp meun nañ fa dem comme ils veulent à partir du moment où ñi ngi détenir ay éléments de justification ou d'identification mm-hmm. c'est habitude nous dañuy ñew ci ñaari mbir lu wax l'expression de la frustration des masses une mm-hmm. manifestation ou l'expression de la communion des masses mooy tey yan événement la ñu am Sénégal yuy wane ay communion de masse. Mm-hmm. appel magal gàmmu. genre yu demee na mm-hmm. exactement. donc tey bu lii weesoo quatrième point bi socialement bu ñu étudier réew mi dañuy xool ay amortisseurs sociaux ñun tey xoolal Sénégal amortisseurs sociaux yu ñu amoon daanaka yu ci bët bëri damm na tey da ngay gis ñu saaga ay kilifa diine. ma ne amortisseurs sociaux yi. Mm-hmm. daanaka tey lu bëri lañ ci amoon affaire sew na. te dinaa jox ay firnde yoo xamante ni wane nañ ko parce que tey gis nga événement yi passé bi ñu demee ba dugg ñoom ci seen biir ba installé seen dispositif mais dañu woo ay nit ne la ñu ngi ci biir réew mi def leen li ngeen di def. ah bon si. ñan noo wax ñu ngi ci biir jihadiste yoo xamante ni moo tax ma ne la dañuy ñëw ci loo xam ne dafa wutewul ak yow c'est-à-dire que mënoo leen identifier loolu moo tax ñu bëri bi ñu commencé di wax force occulte ñu yaakaar ne ay sénégalais la ñuy woowee terroriste wala affaire wala manifestant yi. y a les gens qui manifestaient parce que dafa am lu leen metti mais am ñeneen ñu ci rax et la preuve tay am na ñi ci interpeller ño xamanteni buñ dé 10 lañ mais neuf yi làkkuñu suñu làkk. si ñi ñu interpeller won si événement wu mars voilà ñu ci bëri dégguñu suñu làkk donc li c'est un problème sérieux du ay waxu opposant wala ku nek au pouvoir li c'est notre pays. mais pour ma heureux la wala événement malheureux bu amé, dañuy ñëw dugg ci ay train wala ay ki di ko exploser mais nous déjà nous sommes un pays à majorité de musulmans c'est un facteur qui joue c'est un facteur bloquant une affaire bi aussi mooy tey Sénégal ni mu mel Burkina Faso seetlul ben, affaire Blaise Compaoré depuis mon nekk à la tête du Burkina est-ce que vous avez un événement majeur au Burkina Vous avez peut-être des manifestations ni ni am mettre mais depuis que Blaise a quitté le Burkina. C'est un événement majeur majeur mooy bi mu fay jógee at bi mu fa Il bi a attentat ñoo au Burkina. Y'a a même pas un mois attentat bi ñu mujjee def au Burkina y a eu plus de 120 morts Mali waxaale moo ko yeneen dëkk yi ko. te dans la communication dafa am ben frange de sécurité bo xam ne ko dépasser loolu moy tax yenn communication yi pour nga expliquer sax ñen ñi ñu comprendre réellement c'est compliqué da ngay dugg ci bi kër yi da ngay dox ci mbedd nga dégg ay nit ñuy wax ñom ils prennent cet état comme leur ennemi alors que li état bi def c'est pour eux. moo tax am na espace boo xamante ni état daf ko war a occuper aussi état warul toog bàyyi ay vide dafa am loo xamante ni la loi sur le terrain yii yëpp dañu waroon taxaw ñu expliquer Sénégalais yi parce que ñoom ils sont investis par information yi nga wax nii ba la li wax nii foo ko teg ak firnde yi mais man li may wax nii état xam na ko l' le sait parce que encore une fois wax naa fi ay dimension apparente de l' état dimension cachée de l' mais Mouhamed am na ñoo xamante ni ay sénégalais lañ. jugee nañ Sénégal dem ci camp d'entraînement Boko Haram entraîné ba ay certification dem au front xeex pour Boko Haram bu wara a ñibbi si Boko Haram signé ak ñom ay contrat pour ñu ñëw installer ay base fi Sénégal amna na si ñu ñu interpeller tej leen fi du dara lu extraordinaire dafa am motax tax ñu koy wax moo tax ma ne du affaire opposant wala pouvoir du lolu li c'est notre pays. au sud ndax japp nga ne eh, fofu noonu par exemple Kédougou. euh ak tamit dëkk yi nga xam te ne nii damay bañ a tudd ñu mel ni stigmatisation ñoo gën a jege Mali ndax jàpp nga ne foofu noonu a un réel risque boo xam ne nii mën na am mën na jaaree foofu risque boobu dafa am moo tax l'armée a commencé à se déployer si côté boobu noonu côté Sénégal boobu la gendarmerie y est l'armée loolu c'est fi évident te tey moo tax même yenn wax yi dégg naa Cheikh Tidiane gaajo di wax yenn kii ñu yaakaar ni day kaf mais les familles religieuses sont infiltrées loolu dafa am léegi nag li des rek mooy naka la ñuy def ba indi fi problème parce que il faut ngeen xam ne que dafa lu bëri loo xam ne ay cohérence la am Idriss Déby bi ñu éliminer nga xam ne le Sahel devient benn couloir boo xam ne c'est vide tey gis nga loolu noonu finalité bi lenn kese la le pétrole du Sénégal.